gis nga boo ko déggatee man mi maa la ko waxal tàgga tax tax di wër xe dama di tax ak ti tax dunu benn noon man ta tax du Ndaw dama sam pap bi dama dama dama ñëwoon ànd euh, samay xale nekk ci oto di dem di bongo di dem di taasu bongo boobu génn wër àdduna loolu moo waral tey jii ñëpp naan am bongo am bongo xam nga moom bongo moom xam nga ko mooy leket boobu ñuy téye def ci plance bi def ci ngaccar yi daal di jël laam yi def ko ci moom lañ ma dàkkantalee am bongo xam nga bongo doon na loo xamante ni neex na bongo doon na loo xamante ni rythme la guu bi muy génne amul yaa ngi dégg am bongo dafa dafa dafa dafa sagal bongo bi dafa teral bongo bi ndax bongo yi nekk sama gannaaw di ma dar moom valoriser ko nag ñu téye ko ci anam boo xamante ni buñ la téyee rythme lay doon lu lu neex lay doon waaw lu amul fenn. damaa ñëw dugg si bongo yi fekk fi bongo maan yi bongo dar moom mu rythme léegi nag bongo maan yi ñëpp kuy bongo rek man nga jël ne ma euh, man nga jël ne am bongo ñu boole ma ci bongo maan yi waaw loolu tam lu ma neex la ñoom ñu ngi am seen game mais ñu ngi ma boole seen game yaa ngi dégg ndax bongo bi nga xamante moom laa doon àndal bongo bi di ma dar mu doon rythme ma génnaaleeg en bongo ñu tuddee ma en bongo bongo maan jël ma xàcc ma dóor ma ci seen kaw ma ci bongo maan loolu c'est délicieux. mille neuf cent dëgër këcc damaa dugg Dakar ak ñëw ak bongo yi teg ku ci rythme boo xam ne mësul am sénégalais yi mësuñ ko gis ñu dàkkantale ma am bongo ma jël jigéen diwu ma démb rek kon. dama ñëw benn xew fii Kaolack nangaan mais bi ma wàccee ne cëpp rek dama dama dama dama dama dama gën a bég dama gën a am ci sama bopp yaakaar dama gën a fier sama bopp ndax damaa ñëw sama waa dëkk xale yi am bongo am bongo am bongo am bongo mu neex ma lool neex ma lool sant yàlla la euh, jigéen ji baax jigéen day jéem a prêter serment yëkkati loo xam ne dinaa fi jur ki gën ki ma fi andi loolu jigéen ju baax moo koy def waaw buma ñëwé tay ji ni joggé jóge Kaolack nangaan ñëw Dakar jaay la la fa ci radio ñoré fexé ba marque sama empreinte ba yëkëti sama loxo ba ku ne mané mané mané sant yalla la et puis fierté Kaolack la fierté Kaolack la j'aime bien euh, Kaolack. dama né gis nako ko waaye dama né xol naa ko bu baax bu melni fi am. gore nañ yaru nañ tabe nañ maandum nañ te liggéey naa la waxal yi ñaar gis nga boo ko déggatee man mi maa la ko waxal tàgga tax pi di wër xe tax dama ne di tax ak ti tax dunu benn noon man ta tax billaay bali yàlla tax li tax ba tax ba tax a tax moo tax ma tax du ngeen leetar bu ndaw xëju leen ci poste kenn du leen ko li du leetar bu ndaw déggéen too jaaxin too